bañ bañ cee bañ ci def ndax du sëñ bi digle. waaw ñun ñu yam ci li rek bañ bañ cee wërante ndax li sëñ bi digle. li sëñ bi digle moom ñëpp ci yaakaar naa murit bu ko dégg. nee na murit bu ko dégg. da nga ci bég te da nga ci jéem a jàpp. da nga ci bég te da nga ci a jàpp. waaw ah, kon nag bu ngeen ñëwee fii loolu seen yitte la mën naa ñàkk sax. waaw nee na ñëw gi sax mën naa ñàkk sax. sëñ bi li mu def xam na ko. nee na sëriñ li mu def xam na ko. ndax waa kër Cheikh Ibrahima ñëpp xam nañ leen. ndax waa kër Cheikh Ibrahima ñëpp xam nañ leen. yoon wi soso ba léegi. ba yoon wi soso ba léegi benn taxawaay la ñu xam nañ ko. te loolu murid xam nañ ko. kon nag bi mu leen dénkee loolu xam ne ñëpp amoon na ci njàqare ndax tàmbali la boo xam ne ko bàyyi mu dox. te xamul fu mu yem nee na kon nag bi mu leen dénkee loolu nga xam ne ñëpp amoon nañ ci njàqare. te ku bàyyi mu dox àgg foo xam ne fii duñ bëgg mu àgg fa. te ku ko bàyyi mu dox dana àgg foo xam ne duñu bëgg mu àgg fa. kon nag bu seetee yaakaar ne yéen a ci man dara. kon nag bu nu bu seetee ba xam ne njabootu Cheikh Fall bi ñoo ci man dara. mu dénk leen ko. mu dénk leen ko. loolu lu rëy la. nee na loolu lu rëy la. kon maa ngi ñaan. ngeen am am ci ndam. nu am ci ndam. tam demee ni nu ñu ko bëggee. tam demee ni ñu ko bëggee. jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke. na sëñ bi sëñ nee na xam na ni sëriñ bee fi nekkul. waaye kon sunu kan du si jib. waaye kon nee na kàddoom du si jib. waaye nag ndegam dem ngeen fa. waaye segam dem nañ fa. te fekkuñu ko fa. te fekkuñu ko fa. war na noo mën a wax ay kàddu. war na noo mën a wax ay kàddu. ci turam ci turam. li muy wax nag moom mooy. li muy wax nag mooy. fii moom ci kër sëñ Abdou Lahad. fii moom si kër sëñ Abdou Lahad yaari kàddu amu fi yaari kàddu amu fi ndigal li sëñ bi joxe rek ndigal li sëriñ bi joxe rek mooy doon kàddu gi mooy doon kàddu gi lu mu wax rek lu mu wax rek yóbbaale nañu ci biir loola yóbbaale nañu si biir loola noog njaboot gépp noog njaboot gépp ku aju si nun ku aju si nun wala nga aju si kër sëñ Abdou Lahad wala nga aju si kër sëñ Abdou Lahad tewee ci ndigal tewee si ndigal loolu daal loolu daal mooy kàddu yi amul lu ñu ciy wax. amul lu ñu ciy lu ñu ciy def. amul lu ñu def. bu sëriñ bi xasee yëkkati kàddoom bu sëriñ bi xasee yëkkati kàddoom. képp ku aju ci kër sëriñ Abdou Lahad. képp kër sëriñ Abdou nga xam ne. na nga xam ne. yaa ngi ci biir ndigal yaa ngi ci biir ndigal la. amul lu ñuy diisoo. amul lu ñuy diisoo. amul lu ñuy waxtaane amul lu ñuy waxtaane. jëf ji rek jëf rek. ni ko sëriñ bi bëgg ñu defee ko ni. ko sëriñ bi bëgg ñu defee ko ni rek. loolu rek la loolu rek la. salaamaaleykum wa rahmatullahi jërëjëf Mbacke. waaw sëriñ bi nee moom ndigal rek ko fi bàyyi. waaw jëfe ndigal fu mu nekk ndigal la ko fa bàyyi waaw waaw <laughs> waaw nee na fas na yéene ànd kook sëriñ bi ndigal li di si soññ taalibe yi bu baax a baax jërëjëf Mbàkke waaw sëriñ moo Habib nee na fas na yéene ànd seeg sëriñ bi te di si yoon di si soññ taalibe yëpp rek waaw nu góorgóorlu si ndigali sëriñ bi rek nee na bokki taalibeem yëpp mu ngi leen si soññi. alhamdulilah sëñ bi nee xolam sedd na lool <laughs> waaw na xolam sedd na lool <laughs> bég na lool waaw jërëjëf Mbacke ñaan suñ borom yàggal la fi lool waaw wéral cër yi lool amin waaw